bo beugé seetaan lamb ji dox diggante Balla 2 ak modulo en direct ci senaffiche.com yomb na amal crédit bu tollu ci 2000 francs nga daldi di dugg ci site senaffiche.com affiche ci image ñaari mbëri ngir jënd sa code. nga bës ci crédit téléphonique 2000 francs Daddy Google ce numéro téléphone si ça si di nga message bu Si ci un affiche bu lay jox code bu ko défé ngir vous sa code vous ngay la nga di bu ko défé di nga code par message bu dimanche nga un jakarlok ak ñaari mbëri affiche point com de que le meilleur gagne